بسم الله على ملة رسول منهج القديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم القديمية بعد الله الخليفة المريد يا محمد المنتقى ñi dëkkee senegaal ñëpp te di ay góor moo xam ci réew mi mbaa ci bitim réew ñu ngi leen di dugal ci miim ga miimu ak almuntaqa ñi di jigéen ñépp ñu ngi leen di dugal ca xaaf ga loolu waxin la woo xamante ne bii mimok al muntaka malaaka yi bu leen neexee mu gën a yaatu àdduna xaaf gi it bu leen neexee noonu ndax malaaka dara tëwu ko moo tax ma ci ngir sama candidature bi ñuy dégg man candidat al yàlla dara warulu ko lu tuba Touba d'abord ñi ma war a dégg ñi nga ku tedd ki lañu def muy seen yaakaar yi tey ak seen yaakaar yi ëllëg ñoo ma war a gën a déglu waaye ñi nga xam ne ñeneen la yaakaar yi itam war nañ maa déglu ndax independance bi ñuy wax bu ñu ko amee ku tedd kee tax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul moo tax waaw ci baatin ak ci zaahir nag laa wax ndax waxoon naa fi kat avril bi bi mujjee jógee ci dernier exil bi joge Mauritanie duggaat ci rew mi 4 avril la dajelo waxena ko noné ma bëgg xamal wa rew mi ni doonuma citoyen bo xamanteni bi bëgg doon jitt ci dara mba bëgg di wut lu ñuy bien mba matériel mba ki koppar yooyu taxumaa jox ku tedd ke ma tax a jóg ci turu yalla yi wax turu candidature bi bu ngeen ko déggé moy réew mi lu fi baax daa am lu ko gën li ko li ko gën nag ki fi gën moo ko yor <laughs> ndax alayhi salaatu wasalaam yonent bi moo gënal yàlla te ali alayhi salaatu wasalaam moomu moo waxoon yàlla ni ko na ko indil fii ku ko yeesalal lislaam ku tedd fi feeñ fii ak ci ki mu feeñe ak façon bi mu feeñe def fi li mu fi def tubaab yi def ko liñ ko def jamonoy dox jamonoy dox di dox di dox ba egsi fii mu am dëkk boo xam ne à travers le monde amul fenn adduna bi boo jëlee Màkka teg fee amul fenn foo xamante ni bii day am événement annuel lii bi daje fii di fa daje ci lislaam amul de waaw bu dee ci leneen nag xawma waaye bu dee ci lislaam moom amul dëkkam bi itam ni mu toll sur le plan démographique ñu koy moomale kenn à travers le monde da amul wa dëkkam bobu nag bu bokkee fii ci réew mi Sénégal yi fi xew di xew ci wàllu politique ki élection ki nangam ak ki nangam jamono toll fi mu toll hmm? wax dëgg yàlla ñun ñëpp nu war a takk suñu ndig ngir dëkkam bii ku ko xool rek ku ko xool ci ñaari fànn yëpp donte moom ñoru ko woon ndax aqbalati dunya ilaya xablu la waxoon wa bituha fasala anil kablu adduna ñoru ko waaye teewul yàlla jox ko ko malaka ni dunya waxra samadu maa hindahu lixtaarahu muhammadu la ko ci yàlla tànnal li baax ci àdduna lépp lépp lépp yàlla yonent bi tànnal na ko ci yàlla ci borom waa kon réew mi nga xam ne lu simple la nga xam ni ni ñu tasee parti ngóor si ni ñu tasee parti kii nekk ci kaso bi di Ousmane non le parti yépp wara tassé tase <laughs> dëgg leen tax wa parti unique mo fi wara am wa bo xamanteni bi dañ nan yalla néna wa wa ñi ñi nga ak bu fekkente ne amna ñu ñuy wax ni kenen néna kon mu doon ñaari parti rek boobu parti mu wara doon opposition way yi ni def yépp yépp yépp yépp ay tiaxan la te tiaxan yi tuba bi képp nu ko yóbbee nu top ci lang-lang yi jëmele bu kenn xamul waaw candidature bi nak rawante nak ñetti murid yi murid bi ak murid sadiq bi ak murid sadiq wan nabil ñoom la gën a concerné waaw ñoom la gën a concerné waaw te man bu ma gisee koo xamante ne bi nangu na li may wax Touba ku ko nag bu ko nag ku <laughs> ma gisee man le réalisme africain moo ma ñor moo ma tax a jóg moo tax may wax waaw réceptacle bi dañ ko génnee ci joxoñu ku tedd ki ci ay tegtalam waaw projet de société muy Madabul Fawzeyni ñun li nu bëgg Touba bu nu gisee ku ko nangu rek ni nu ko bëggee bu nu ko gisee rek moom daal di ci génn ba seet ci wécc waaye bu nu ko gisul nag dañu koy assumer ba lu nu ci góobe gar wasalaam